Thank you. fees na mais courant bi fees na sécurité bi doy na vraiment autorité yi ak personnalité yëpp ñëw nañ ak politiciens yi kon lu rafet la loo xam ne dañ ciy gërëm bu baax ki nga xam ne mooy Ibrahima Ngom Sanokho moom mi nga xam ne mooy initiateur bi mais également di gërëm équipe nga xam ne ñoom ñoo koy jàppale ah li nga xam ne nag mooy particularité bi ak liñ ci dégloo li tax ñu dugg ci mooy juróom-ñaari at a ngi nii ñuy dawal challenge maître Abdoulaye Wade loolu nag mu doon lu rafet loo xam ne euh, bañ koy gisee ba léegi bàyyiwuñu ko parce que dañuy def maanaam saa ñu dawalee ñeenti courses yi ñi nga xam ne ñoo ci raw muy ñetti premier yi wala ñaari premier yi ñu boole leen muy juróom-ñetti mbaam ñu boole leen ñoom ñett ñu dawal course challenge maître Abdoulaye Wade suñu président bu baax boobu nga xam ne dañu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi guddal fanam parce que yàggam fi am na njëriñ. mais également ñu di ci fàttaliku bu baax a baax suñu candidat Karim Meïssa Wade nga xam ne Sénégal gépp yàkkamti nañ mu ñëw moom rek la xaar fi mu nekk nii pour maanaam mu ñëw li nga xam ne moo nekk ci jafe-jafe réew mi mu saafara ko kon nag tey moo ñu fi indi ñu ñëw nag kontaan trop ci challenge bi euh, challenge bu am solo la chaque année ñu ñëw teewe ko teg ci prix vraiment ba ñëpp léegi yaakaar naa ne adapté nañu ko kon daal lu ñu mën lu dul sant suñu borom ginnaaw yàlla ñu sant également Sanoxo ci lii nga xam ne boole ñu ko bi boole ci président Ablaye Wade muy une reconnaissance boo xam ne yaakaar naa ne waxuma la Sanoxo kese mais Sénégal gépp kenn tey waroon nga taxaw wut loo def loo xamante ni da nga ko rendre hommage maître Abdoulaye Wade ndax li nga xam ne def na ko ci réew mi. ak li mu def ci Sénégal yaakaar naa ne ñëpp gis nañ ko te bépp loo xam ne lu ñu fàtte loolu nag ñu ngi lay tàllal waa Sénégal yëpp ñu bàyyi xel ki nga xam ne mooy doom ji euh, ndax bàyyi ba doom ji mooy suñu frère suñu mentor suñu candidat Karim Meïssa Wade ñu ñaan suñu borom andi ko ak jàmm yaakaar naa ne su ñëwee ah su boobaa yaakaar naa ne lépp loo xamante ni woon naqari na Sénégalais yi su boobaa loolu dina faju incha allah